wu boo xam ne da ngay joxoñ l'autre indexé ko ne moom mooy la source de tous tes problèmes te tegoo ko ci xam-xam ma wax leen lu gàtt ci mbir mi ñiy wax naan suñu problème guinéen la waaye suñu problème libanais yi la bi ñu génnee ñun kaso sama première conférence de presse dama leen ne teg leen wax yooyu ci suuf booba jamono ñi ngi wax Amadou Ba du ab Guinéen la man leen Amadou Ba sénégalais la juddoo fi yaroo fi jàngee fi liggéeyee fi exerce fi toutes les responsabilités sénégalais bu kàccoor la nag waaye sénégalais la sénégalais bu kàccoor mooy Amadou Ba waaye ab sénégalais la moo tax affaire yooyu nañ ko bàyyi ñooñu di wax loolu su ngeen leen ne woon ñaata étranger moo ne Sénégal man dinaa leen jox chiffre waaye dama waroon bàyyi rek ba a jox chiffre yi fu ngeen dajeeg ñoom nee leen ñaata sénégalais ñaata étranger ñoo ne Sénégal duñ leen mën a wax ñaata étranger moo ne Sénégal ma jox leen des chiffres concrets nga xam ne recensement ANS bi ANSD bii ñu def bu mujj bi moo joxe chiffre yooyu bu ma ci daanelee di ngeen mën a xam ndax seen problème mi ngi jóge ci ñooñu wala déet. population Sénégal dernier recensement bi dix huit millions cent vingt six mille habitants la dix huit millions cent vingt six mille habitants étrangers yi boo leen dajalee ñoom ñëpp ils font deux cent sept mille sept cent quatre vingt onze soit un virgule pour cent de la population sénégalaise lii mooy statistiques yi xam nga suñ leen nee. ñii mat nañu 3 millions newoon nañu population guinéenne bi mat nañu 3 millions te ñoom ñëpp Amadou Ba la ñuy voteel xanaa kay 3 millions de Guinéens bu ñu votoon Amadou Ba Bassirou Diomaye Faye du dégg wiw yéen ñii seeni quartier million millions sur 18 millions xam ngeen lan la c'est un sixième ça veut dire juróom benn kër yoo gis benn bi étranger la war a doon est-ce que fii Géejawaay juróom benn kër yu ne benn bi étranger moo ko moom c'est-à-dire nañu waxante dëgg te di wax lu yenu maana est-ce que Sénégal foo tourner peut-être ñu bëri ndakaaru la ñuy yem ndakaaru am na quelques étrangers demal Touba Mbacké demal Kaolack demal Guinguinéo demal Fouta di nga dox lu yàgg yàgg yàgg doo gis benn étranger kon ku leen gëmloo ni étranger yi ay milliards lañu fii Sénégal dañuy wax lu ko neex. ñun ñii di sénégalais ñun ñii di sénégalais ay tukkikat lañu parce que dañuy utiliser ay arguments yoo xam ne mun na jural sénégalais yi nekk bitim réew ay problème nañu def attention de est-ce que xam ngeen ñaata sénégalais ñoo nekk bitim réew on a entre sept cent cinquante mille et neuf cent mille sénégalais qui son hors du Sénégal imaginez neuf cent mille sénégalais bu ñu leen tuuroon Sénégal tey. fa ñu ne ñu ngi fa am seen sutura di yónnee ñu bëri ay famille ñu leen di dimbale sénégalais ñi ngi fii biir Afrique de l'Ouest bari fi boo demee Mali di nga fa fekk sénégalais boo demee Guinée di nga fa fekk sénégalais boo demee Gambie di nga fa fekk sénégalais boo demee Côte d'Ivoire di nga fa fekk sénégalais kon nañu def attention boo ci doolee nag ñun panafricanisme la ñu woote kon am na loo xam ne buñ ko buñ ci soree ba sori. yéen a dégg France ñu naan extrême droite bu ñu xëyee dal ci africain yi wala étranger ne suñu malheur yëpp ci ñii la jóge suñuy mbokk di ko dund mu métti lool ñu xam ni ñenn ci ñoom bu ñu gañe woon boo moytul dañu leen di lem ak seeni bagage yu ñibbisi kon ñun bu ñu commettre les mêmes erreurs lenn moom dina am fii ci réew mi mooy dinañu contrôler kan mooy dugg ci réew mi ak kan moo dëgg génn ci réew mi loolu nañ ko contrôler ngeen déglu mu baax rek man li ma yàgg a wax mooy on doit appliquer la réciprocité man réew boo xam ne balaa ma fay dem da may laaj visa balaa yi nga dugg Sénégal da nga war a am visa man loolu laa gëm te duma ko laam-laame moo xam France nga tudd. moo xam États-Unis moo xam bu dee bu may dem sa dëkk dinaa dem ra ambassade suba ak ngoon nga laaj ma xaalis léeg nga delloo ma ne ma jox ma la te téye xaalis bi doo ma ko delloo kon yow booy ñëw sama réew danga nga war a fay visa loolu mooy yoon muy benn ñaareel bi étranger yi nga xam ne ñi ngi biir réew mi même ñi nga xam ne c'est dans le cadre de la CEDEAO parce que xam ngeen dañu bokk espace bu tudd CEDEAO mu am liberté d'aller et de au sein de la CEDEAO waaye war nañu mun a am benn carte buy identifier képp kuy étranger ba ñu xam ni kii étranger la ci biir réew mi loolu lu ñuy liggéey la assemblée nationale ñetteel bi muy lu am solo mooy état civil bi man nekkoon naa maire. jàpp naa ay nit ci état civil ñuy def lu dul noonu ma ne ñii dama leen di yóbbu tribunal mais état civil bi problème yi ñu ciy wax jeex na parce que am na programme boo xam ne ñi ngi ci dernière phase bi def nañ ci 19 milliards pour la numérisation de tout l' état civil ba nga xam ne dootul doon benn agent buy toog fii di génne ay papier mais lépp dañ koy programmer sur ordinateur ba nga xam ne kenn mënatul jaay kayit kenn. loolu dinañ ko liggéey mais bu loolu weesoo mais bu loolu weesoo bu leen kenn monter contre une quelconque communauté notre problème ne vient pas de telle communauté ou telle autre communauté communauté bu fi nekk ñenn ñi yàgg nañ fi ba seen ñi ngi seen troisième génération seeni doomaat ñoo fi nekk tey boo demee suñu équipe nationale di nga fa gis ñoo xam ne Diallo la sant wala Ba. seen baay wala seen maam moo fi ñëwoon te pourtant bis bu ne ñu tàccu leen parce que ñu ngi joué football bu baax kon bu ñu dugg ci débat yooyu et li ci gën a garaaw mooy dina dem ba discours yooyu day dem ba da ngay xëy jékki-jékki rek ay jeunes ne ñun ñii yooyu suñu problème yenn ay bant ne ñu ngi dem songi ñooñu bu ñu mus a dugg ci lool nous sommes un peuple civilisé un peuple ouvert sur le monde un peuple responsable un peuple voyageur. et quand tu voyages ailleurs da nga war a mën a accepter ñeneen ñëw fii ñetteel bi nga xam ne nag moom laa bëgg a daanele toujours ci li ñuy waxtaan mooy féliciter l'équipe de campagne féliciter l'équipe de campagne commencé ko par monsieur le directeur de campagne fadilu Keïta ak ak son adjointe Jamila Diallo félicité ñi gérer sécurité bi dama bëgg ngeen tàccal ma bu baax ñi gérer sécurité bi jàmbaar lañu ma félicité également ñi nga xam ne ñi ngi ci liggéey bi te kenn du leen gis d'habitude mooy ñi communication bi yépp équipe digitale bi ak ñeneen ak ñeneen félicité ñi nga xam ne ñoo yor machine électorale bi te kenn xamu leen muy waa Senop ma bëgg ngeen tàccu leen bu baax waaye ñii nga xam ne nag ñu leen di wooye les patriotes riders ñi yor seen moto dama bëgg ñoom it ngeen tàccu ma leen bu baax mais leader yi ñu àndal yëpp nag nga xam ne topp nañu Sénégal yëpp yor micro bi di neexal campagne bi. di agrémenter discours yi maa ngi leen di féliciter di leen encourager ñoom it di wax patriote yëpp nag di wax peuple sénégalais bi ni que rendez-vous bii rendez-vous démocratie la ça doit être une fête li ngeen ko defee yëpp wane ngeen ni fête la fête bu mag fête boobu nag moom lañu ñu bëgg a continuer ba keroog dimanche. ñu gagné avec une majorité écrasante en valeur relative dañu bëgg victoire boo xam ne day dépasser 60 pour cent en valeur absolue bëgg nañu am minimum 150 150 députés à l'Assemblée nationale dama wax ni jaar nañu Sénégal partout li ñu sénégalais yi won liñ ñu wax mooy am nañu kóolute ci ñun kóolute googu nag du ñu nangu lu ko yàq fête démocratie violence amu ci place ku wóolu sa programme wóolu sa xam-xam doo utiliser violence moo tax li may wax Abdourahmane Diouf ñun nitu jàmm lañu mais vouloir la paix ne doit pas conduire à une faiblesse coupable la paix lu ñuy sàmm la léeg-léeg nit def guerre malgré lui parce que ni ñuy sàmmee jàmm mooy lépp lu nar a yàq jàmm ñun ñëpp ñu ànd dal ci loolu jëlee ko fi kon li ñu Sénégalais yi wax pendant ces jours mooy feddali nañu seen confiance ak seen kóolute ci ñun te gëm naa ni keroog lu lay gën a garaaw mais li ma bëgg a fàttali patriote yëpp mooy nous faisons face encore à un système le système n'est pas encore mort système boobu. mooy classe politique bii nga xam ne faw ñu jëlee leen fii mais système boobu mooy une grande partie de la presse